ñeen fukk ak ñaar jaanu xànjar
salaamaaleykum mbokki déglukat yi nu ngi leen di nuyu ci turu yàlla borom jàmm ji bëgg ñépp dégg te nangu yoonu njëpp mu tëral ngir am jàmm ju wér ak moom ba faaw am na nu mbégte ci li nu mën a dellu si tey ngir dégtal leen seen émission yoonu njëpp émission bi weesu gëstu woon nanu ci ñeenteelu xaajub tawret ba gis ni bànni israel ak seewoon ca diggu kanam di réew mi yàlla digoon ibrahima ak askanam yàlla fasoon na yéene tasaare ponkal yu soxor yi dëkkoon ci réew ma jébbal lépp bànni israel waaye lu ëpp ci gaay yi israel dañu ragaloon ponkal yi ba tax gëmuñu li leen yàlla digoon noonu jàngoon nanu ni yàlla àtte woon bànni israel ndax seen ngëmadi mu ne leen du ngeen dugg mukk ca réew ma ma giñoon ne dingeen fa dëkk yéen ñépp ba mu des kaleb ak yosuwe ndaxte meneen xelaleen xiirtal te ñu ngi may topp seen xol bépp ànd ci seen askan dina ko moomi te it seen doom yi ngeen ne dañu leen di jàpp dinaa leen fa yóbbu dinañu xami réew mi ngeen gedd waaye yéen seeni néew dinañu des ci màndiŋ mi li nu wara ràññee mooy yàlla moom bëggoon na barkeel bànni israel lool waaye mënu leen woon barkeel ndax seen gëmadi bañ gëm li leen aji sax ji digoon a tax yàlla daan bànni israel ñuy tambaalu ca màndiŋ ma diirub ñeen fukki at ba keroog ñépp ñu ko gëmul woon dee léegi nag nanu wey ci ñeenteelu xaajub tawret ba gis li xewoon ci mujjug ñeen fukki at yi bànni israel xasar xasare ca màndiŋ ma ndax seen gëmadi ci saar ñaar fukk mbind mi nee na gannaaw bi bànni israel doxee ca màndiŋ ma daanaka ñeen fukki at ñu àgg ci màndiŋu sin dal kades maanaam fa ñu jëkkoon a nekk ba ñu bañee gëm yàlla ba dugg ci réewum kanaan mi mu leen digoon foofu la maryaama magu musa deewe ñu suul ko fa mbooloo mi amuñu dara ci ndox ñu dajaloo di dingat musa ak arona mbooloo maa ngi wut ay ci muusa naan cëy lu tax deewunu ba sunu mbokk ya di dee ci kanamu aji sax ji lu tax nga indi mbooloom aji sax ji ci màndiŋ mii xanaa du ngir nu dee nun ak sunu jur lu tax nga jëlenu misra ngir indi nu ci béréb bu bon bii fii du béréb bu ñu mën a jiwe te amul garabu figg amul lawtanu reseñ amul garanaat te du ndox mu ñu naan ndax dégg ngeen li bànni israel doon wax gannaaw lépp li yàlla defoon ci seen kanam ak ci seen kanami baay ci misra ak ci biir màndiŋ ma ndax seeni xool fees nañu ak ngërëm ak kóolute déedéet ni ko seen baay yi daan defe noonu lañu ko doon defe ñoom itam dañu doon xultu rekk dëgg la bànni israel amuñu woon ndox kon lu taxoon ñaanuñu yàlla moom mi leen toppatoo woon diirub ñeen fukki at ci biir màndiŋ mu wow koŋ moomu ndax mënu leen may léegi ndox mu ñu naan aha kay yàlla bëggoon na faj seeni soxla yépp wante ba tey bànni israel wóoluwuñu woon yàlla seen boroom nanu wey léegi ba gis li xewoon mbind mi nee na noonu musa ak aarona jóge ca mbooloo ma ngir dem ca buntu tàntu ndaje ba ñu daldi daanu dëpp seen jë ci suuf leeraayu ndamu aji sax ji feeñu leen aji sax ji ne musa jëlal sa yat wi te nga dajale mbooloo mi yow ak sa mag aarona na ngeen wax ak xeer wi ci seen kanam bu ko defee mu xelli ndox ci noonu dingeen leen génneel ndox ci xeer wi jox mbooloo mi ñu naan ñoom ak seen jur musa jël yat wi nekk ci tàntu ndaje bi ni ko ko aji sax ji digale woon musa ak aarona daldi dajale mbooloo mi fa jàkkaarloo ak xeer wa musa ne leen déglu leen nag yéen ñi dul topp ndigal ndax ci xeer wii lanu leen di génneele ndox noonu muusa yëkkati loxo bi dóor ñaari yoon yet wi ci xeer wi ndox mu bare génne ca mbooloo maag jur ga naan waaye aji sax ji daldi ne musa ak arona du ngeen dugal mukk mbooloo moomu ci réew mi ma koy may ndaxte gëmuleen ma ba wone ni sama sellaay màgge ci kanamu bani israel ndax jàpp ngeen li xewoon lan la yàlla digal musa ak arona ngir mbooloom israel am ndox mu ñu naan mu ne leen nangeen wax ak xeer wi ndax musa ak aarona déggaloon nañu yàlla ba wax ak xeer wi déedéet waxuñu ak xeer wax waaye ci seen mer dañu ko dooroon ñaari yoon terewul yàlla ci mbaaxam defoon na ba xeer wa xelli ndox waaye li musa ak aarona defoon neexul woon yàlla looloo tax mu mbugal leen naan du ngeen dugal mukk mbooloo moomu ci réew mi ma koy may ndaxte gëmu leen ma ba wone ni sama sellaay màgge ci kanamu bani israel xëy na ci sunuy xalaat mbugal gi yàlla teg musa ak aarona lu diis a diis la waaye li nu war a fàttaliku mooy yoonu yàlla yoon wu mat la yàlla mënul nangu dara lu àndul ak kàddoom su fekkee sax ci yonent yàlla musa la jóge yàlla du gënale ci lu wér musa yonent bu tedd la woon waaye nit kese la woon ku bindoo ni nun ñépp kon nag bàkkaarkat la woon ni doomu aadama yépp yonent yàlla musa sax mënul woon a musal boppam ndax jëfam yu baax ni doomu aadama yépp amoon na sikk te matalul woon lépp lu jub yonent yàlla musa ni bànni israel yépp waroon na jaar ci yoonu mucc wi yàlla tëraloon di yoonu deretu sarax jaare ko ci bàkkaaru musa nag yàlla dafa nu bëgg fàttali ne ñépp tooñ nañu ba jotetuñu ndamu yàlla ñépp a yem fa kanam yàlla ku mu mën a doon bàkkaar na ku jub amul amul kenn ku mësula jàdd yoonu yàlla lu dul ramukat bu sell bi jóge asamaan ngir musal bàkkaarkat yi léegi nag nanu jëm kanam ci nettali bànni israel ci mujjug saar ñaar fukk jàng nanu ni aarona magu musa deewe woon ca tund wu ñuy wax xor te mbooloom israel jooy ko fa diirub fanweeri fan gannaaw loolu nag ci saar ñaar fukk ak benn mbind mi nee na kon nag ñu nga jóge ca tund wu ñuy wax xor jaar ca yoon wu jëm ca géej gu xonq ga waaye ca yoon wa mbooloo ma xàddi ñuy xultu ci kanamu yàlla ak musa naan lu tax ngeen jëlenu misira ngir rekk nu dee ci manding mi ndaxte fii amul dugub amul ndox te bëggatunu sax teg bët mànn mi ñambu naqari wii noonu aji sax ji yebal ci mbooloo ma ay jaan yu am dangar ñu màtt leen ñu bare dee ca bani israel mbooloo ma dem ca musa ne ko bi nu lay diingat yaag aji sax ji bàkkaar nanu ñaanal nu aji sax ji ngir mu jële fi jaan yi noonu musa ñaanal mbooloo ma aji sax ji ne ko defarlul jaan nga wékk ko ci ab bant képp ku jaan màtt bu ko xoolee mucc musa daldi defarlu jaanu xànjar wékk ko ci ab bant noonu saa yu jaan màttee nit kooku day xool jaanu xànjar ji doxe fa wér nanu xalaat tuuti ci nettali bu doy waar bii lu taxoon yàlla yebal ay jaan yu am dangar ci dalub bani israel seen bàkkaar a taxoon dégg nanu ni ñu doon xultuwaate fa kanam musa ak yàlla te xeeb sax ñam wi leen yàlla wàcceel ca asamaan looloo taxoon yàlla yebal ci seen biir ay jaan yu am dangar ñu màtt leen ba tax ñu bare dee ca lan la bànni israel mënoon a def nag ba rëcc ci dee googu ndax mënoon nañu musal seen bopp ci musibam jaan ya ndax mën nañu faj seen bopp ci dangaru dee mënula am lan lañu mën a def nag mën nañu wàññeeku ci yàlla te moom lañu defoon gis nanu ni bànni israel réccoo ba dem ca musa ne ko bàkkaar nanu tooñ nañu la tooñ nanu yàlla ñaanal nu aji sax ji ngir mu yërëm nu jële fi jaan yi ndax yàlla jëleloon na leen fa jaan ya lu gën loolu sax la def yàlla waxoon na musa mu defarlu jaanu xànjar yëkkati ko cib bant noonu saa yu jaan màttee nit kooku day xool rekk jaanu xànjar ji ñu wekkoon ci bant ba doxi fa wér loolu moo doon yoonu mucc wi yàlla tëral xoolal rekk te dinga mucc yàlla dige woon na wéral képp ku xool jaanu xànjar ja musa wekkoon ca bant ba lu xewoon nag ak ña ko bañoon a xool dañu dee deegu metti waaye képp ku gëmoon yàlla ba xool jaanu xànjar ja mucc ci dee ndaxte yàlla digoon na leen ne képp ku jaan màtt bu xoolee jaanu xànjar ji dina mucc ci dëgg-dëgg nettali bu neex la waaye yamul rekk ci neex dañu ko bindoon ngir nu sàkku ci xam-xam yàlla daf nu bëgg a won ne nun ñépp a mel ni bànni israel nun itam ay bàkkaarkat lanu ba tax nuy faral di xultu ci kanamu yàlla ak nit ñi di tooñ yàlla ak nit ñi ci sunuy xalaat sunuy jëf ak ci sunuy wax seytaane dafa mel ni jaan yu am dangar yi doon màtt bànni israel te bàkkaar dafa mel ni dangar jaleen doon fàdd seytaane màtt na doomi aadama yépp te dangaru bàkkaar dina nu sànk ba faaw su fekkee ni yàlla saafaralu nu ko peyug bàkkaar mooy sànku ci safara sudul fay si te ci sunu bopp amunu menn pexe ngir rëcc ci waaye nu ngi sant yàlla ndaxte ni mu rabate woon pexe ngir musal bànni israel ca dangaru jaan ya noonu itam la rabate pexe ngir musal doomu aadama yi ci dangaru bàkkaar yow miy déglu tey ndax xam nga lu la yàlla defal ngir musal la ci alkande ji bàkkaar indi déglul li ramukat bu sell bi waxoon daanaka junni at ak juróomi téeméer gannaaw ba muusa yëkkatee jaanu xànjar ja ca mànding ma mu ne na muusa sampe woon ab bant ca diggu mànding ma takk ca jaan ja mu defare woon xànjar faaw ñu yëkkatee noonu doomu nit ki di ramukatu àddina si ngir képp ku ko gëm am ci moom dund gudul jeex te doo sànku mukk ci loolu nag gis nanu ne jaanu xànjar ja muusa wekkoon ca bant ba takkandeer la woon ci ramukat bi naroon a ñëw dee ci kaw bant ba ba mën cee daaneel iblis mi yore dooley deegi cëy ni xabaar bi la neexe ci njàng yi di ñëw nag dinanu gis ne jaare ko ci deewuk ramukat bi ak ndekkiteem yàlla ubbil na doomi aadama bunti jàmm ak mbég ba faaw li yàlla bëgg rekk mooy nga nangu ne mënuloo faj sa bopp ci dooley bàkkaar te nga gëm ci sa xol li yàlla seede ci musalkat bi dee ci kaw bant ba ngir fayal la sa boru bàkkaar loolu mooy xibaar bu baax bi xoolal ci moom te dinga dund gëm ko te yàlla dina la faj ci dangaru bàkkaar te dencal la dëkkuwaay ci jataayam ci laaxira mag ak ndaw góor ak jigéen boroom alal ak baadola yàlla ngi leen di wax yéen ñépp xool leen ci ramukat bu am doole bi mu yónni te dingeen mucc waaye dafa leen di wax it ne su ngeen ko bañee gëm ci seeni baakaar ngeen di dee bu ngeen nanguwul saafara si leen yàlla indil kon dingeen dee ci seeni baakaar ndaxte yàlla amul seneen saafara su mu maye ci nit ñi su mën a faj doomi aadama ci dangaru bàkkaar mbokki déglukat yi sunu jotu tey jeex na jërë ngeen jëf ci déglu bi ci njàng mi di ñëw ndegam neex na yàlla dinanu xalaat ci wax yu mujj yi bàyyi ko ci gémmiñuk yonent yàlla muusa te àggalee noonu sunum njàng ci tawret bu sell bi waaye su fekkee ne am ngeen laaj ci lu nu jàng tey bind leen ñu ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis yàlla na leen yàlla barkel te ngeen xalaat bu baax ci li mu wax ci mbind mi bi mu naan xool leen ci man te di ngeen mucc